séentu nañu weer wi waaye feeñul mbokki internet yi seetaan Tivaouane 24 TV asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu tey talaata ñetti fan ci weeru septembre atum 2024 ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru safar di weeru wolof niki tey ji lañ doon séentu weer wi waaye feeñul kon alxames juróomi fan ci weeru septembre atum 2024 mooy nekk benn fan ci weeru gàmm di rabiul awal dimanche 15 septembre 2024 moo nar a nekk euh, bésu euh, gàmm ñu nar a màggal nag guddi ngeen gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam kon mi ngi noonu weer yi tey ji leen ko doon feeñ tey moo nekkoon seddu bu njëkk waaye weer yi mujjewul feeñ kon léegi fukki fan ak juróom ci weeru septembre atum 2024 moo nar a nekk gàmmu Tiwaawan waaye ñuy màggal tamit guddi ngeen gi mbindéef ci dëkk yëpp wala ci réew yëpp ñuy màggal guddi ngeen gi mbindéef sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw suba alxames moo nar a nekk benn fanub rabiul awal ñuy ndokkalewaat ñëpp di ñaanaat yàlla na yàlla faj aajo barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam way leen di abonné fii ci Tivaouane 24 TV jaa ngeen jëf